sëriñ mbàkke kandi buso sëriñ mbàkke kandi buso mi ngi feeñ jamono ci atum 1882 ci dëkk bu ñuy wax naawel ci suuf si nag di saalum ci dëkk boobu nag la feeñe jamono di doomu sëriñ busoobe buso ak soxna kandi mbàkke am na nag ñu mbokkal sëriñ busoobe buso ak soxna kandi mbàkke ñu ràññee ci magam ja sëriñ masàmba kandi buso ibnu sëriñ busoobe buso ibnu soxna kandi mbàkke sëriñ moodu moxtaar buso ibnu sëriñ busoobe buso ibnu soxna kandi mbàkke soxna aminta kandi buso bintu sëriñ busoobe buso bintu soxna soxna kandi mbàkke ak moom sëriñ mbàkke kandi buso ibnu sëriñ busoobe buso ibnu soxna kandi mbàkke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent laataa ñuy xuus sax ci sëriñ mbàkke kandi buso mi ñu wax leen nag njaboot gi bokk nag ñoom ñooy ñan soxna kandi mbàkke nag mi ko meññ doomu sëriñ moor jee mbàkke la sëriñ moor jee mbàkke doomu sëriñ ibrahima awañang mbàkke la sëriñ ibrahima awañang mbàkke doomu maam maaram mbàkke la moom sëriñ mbàkke kandi buso nag waajuróom wu góor nag mooy sëriñ busoobe busoo sëriñ bu soobe buso ak soxna jaara nag mi meññ sëriñ tuubaa seexul xaddiima ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen mbokkum sëriñ bi la nag ci wàll gone ñim bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñana sëriñ ma sàmba kandi buso mooy magam moo sanc nag dëkk bii nag di daarul xaddiima sëriñ maxtaar kandi buso benn bant nag la fi bàyyi muy soxna nafi buso soxna nafi buso nag bi matee dem kër sëriñ cumbuleen buso moom sëriñ ma sàmba kandi buso nag lañ ko jébbaloon ak njaboota ñu mën cee ràññe bu sa Bousso leen mi toog toogaayu sëriñ Massamba Kandi Bousso sëriñ Jiili Bousso ak soxna Njaxat Bousso njaboot gi nag la soxna Nafi sa am ak sëriñ leen Bousso soxna Aminta Kandi Bousso sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag lañ ko jébbaloon moo meññ sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke soxna Maymunatu Mbacke ak soxna Xadi Mbacke bintoog ibnu lañ ci Cheikhul Khadim ak moom nag sëriñ Mbacke Kandi Bousso mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii mu ñaareelu doomu sëriñ Bousso be bu mu tudde nag sëriñ Mbacke Mbàkke ndax sëriñ Mbàkke Buso boroom Gédé nag doomu sëriñ Busoobe Buso la ak moom mii nag di sëriñ Mbàkke moom soxna Kandi Mbàkke doomu sëriñ Busoobe Buso la moom nag ak tuut tànkam di sëriñ Mbàkke Kandi Buso sëriñ Mbàkke Saani nag lañ ko daa woowe bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Busoobe Buso nag moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko jébbal sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo nag la nekk ba ni mu mokkalee alxuraanul karima ginnaaw ko nag di dem ci géej gi sëriñ mbàkke kànde buso àndoon naag magam nag sëriñ mbàkke buso ñu dem nag ci boori tiwaawoon ci dëkk bu ñuy wax kër shérif magam sëriñ mbàkke buso itam nag daana ko jàngal nag lii di xam-xam ak magam nag sëriñ masàmba buso faati ginnaaw ñaari jëmm yu sell yooyu nag maam cheikh elaaji maalik itam nag ci tiwaawoon jàngal na nag doomu sëriñ buso bi bii itam nag xam-xam ci jëmm yii nag la jaar nag ci wàllum njàng bi sëriñ tuubaa seexul xadim nag ci géej gi ba dem dëkk bii nag di gànnaar magam sëriñ ma sàmba kandi buso nag moo ko yóbbu nag gànnaar jébbal ko sëriñ tuuba seexul xadiima soo delloo nag ci way yu ko seex musaa ka way te bi muy marsiyaal nag sëriñ mbàkke buso ma ngay wax ne nag sëriñ mbàkke kandi buso magam nag moo ko jébbal nag seexul xadiima mu wéy nag des gànnaar nag ci loxo loxoy ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul ba ni seexul xadiim nag jógee gànnaar bi seexul xadiim nag jógee gànnaar nag ñëw ci yéen jolofa sëriñ mbàkke kandi buso itim nag mi ngi ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul bi seexul xadiim demee njaareem itim sëriñ Mbàkke Kandi Bousso itam nag mi ngi ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul njaareem googu nag la wéy nekk ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul taxawu ko nag fu ne bi mu nekkee ci yéen itam bindal na nag lu toll juróom benn fukki kaamil nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul njaareem googu itam féete woon na fa nag Seexul Xaadim ci wàllu ay yónneen nag yu ko Seexul Xaadim di yónni ci biir yónneen yi ko Seexul Xaadim yónni nag bi mu nekkee njaareem mën nañ cee ràññee bi maam Cheikh El Hadji Malick nag génnee àdduna ci mbooloo mi mu yabaloon nag ñu dem Tiwaawoon sëriñ Mbàkke Kandi Bousso nag ci la bokk bi magam maam moor jaare itam nag génnee àdduna ci mbooloo mi sëriñ tuuba cheikhul xadim yabaloon ngir ñu ñëw nag fekk si nag bésub maam moor jaara bi sëriñ mbàkke kandi bu sa itam nag ci la bokkoon daana féete itam nag cheikhul xadim ci mbindum alxuraanul karim sëriñ moussa alima géey wax ne na cheikhul xadim nag moo ko xamal ne mbindum sëriñ mbàkke kandi bu sa jërut xool ndax wér na lool mu bokk itam nag ci ñi nga xam ne ni cheikhul xadim itam na leen ci njaareem ba tax na itam nag cheikhul xadim moo ko téye woon njaareem ba ni fa cheikhul xadim bàyyi ko nag ci atum 1927 mu doog a jógee njaareem nag ñibbisi nag ci loxoy magam sëriñ ma sàmba kandi busa nag mi mu bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen nag la féetale loon booba itam nag mi ngi fekk nag magam sëriñ ma sàmba kandi buso sanc nag dëkk bii nag di daarul xaddiima ginnaaw bu mu ñibbisee nag ci ron magam nag sëriñ ma sàmba kandi buso sëriñ ma sàmba kandi buso itam nag moo ko jox nag suufa ci dëkk boobu mu sanc nag di daarul xaddiima foofu ko magam joxoon nag ci daarul xaddiima ab diig nag moo fa nekkoon bu ñuy wax nag ko jolee ci wetu déeg boobu nag la sancoon am fa itam nag ay tool ba tax nag ñu koy wooye nag Touba Kojole ba nëga ni nag dëkk boobu itam nag mi ngi dox ak njabootam itam nag ñoo fa nekk bis bii ñu koy fàttaliku sax foofu lañ koy amalee juróom-ñetti kilomètre itam moo dox nag ci digganteem ak Touba mi ngi itam nag ci wetu forage bii nag di Daarul Xadiima ñu boole koog nag soxna suñuy wax soxna Faati Sekk nag bu Tayba ba tax na itam nag doom ji Sëriñ Mbàkke Kandi bu sa njëkk a gis itam soxna soosi itam nag moo ko meññi muy soxna Faati Buso mu wéy nag des nag ci ron magam di bay di liggéey di nag ay magam ak ki fi toogal baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool di cheikh mamadul moustapha mbàkke ginnaaw bu ko magam sancalee nag ci wetam mu am fa ay daara itim ci biir góor yàlla yim àndaloon nag di liggéey nag ci dëkk boobu nag di kojole ñu mën caa ràññee sëriñ abdu dia sëriñ tayba saaxo sëriñ moor saar sëriñ daaro amar sëriñ moodu jee mbàkke sëriñ sulay bàkk sëriñ moor njaay njarmeew sëriñ arif loo sëriñ mbàkke fay ci dëkk bu ñuy wax waxal jàmm sëriñ mbàkke caama sëriñ maalik géy ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen nag ci góor yàlla nag yum àndaloon nag ci dëkk boobu nag di kojole dajalee di liggéey nag di it ay magam ak ki fi nekkal nag ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul ginnaaw soxna soosu mu njëkk a dëkkool nag di soxna Faati Seck te meññ ab taawam di soxna Faati Buso Serigne Mbàkke Kandi Buso nag yoraatoon na yeneen i soxna ci biir soxna yim dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee ku ñu wax soxna Faati Touré di doomu Serigne Mor Faati Touré bu Madina Touré mook soxna Faati Touré nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee Serigne Cheikh Buso di kam faye Serigne Touba Cheikhul Xadima Serigne Fàllu Buso di kam faye Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Serigne Basiiru Buso di kam Mamadul Bachir Mbacke soxna Mbène Bousso soxna maam Kandi Bousso di kam faye nag waajuram nag soxna Kandi Mbacke soxna maam Aïcha Bousso ak soxna Khady Bousso di kam faye jarbaatam ba nag soxna Khady Jatu Mbacke ak ku ñuy wax soxna Safiyatu Bousso njaboot gi nag la soxna Faati Touré am nag ak mooma yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Wali Mata Njaay mook soxna Wali Mata Njaay nag am nañ ak njaboota njaboot gi mu am ak soxna Wali Mata Njaay ñu mën cee ràññee sëriñ Ibrahima Bousso soxna Khady Bousso di ñaareelu doom nag bu mu fayee nag soxna Khady Jatu soxna soxna ajara buso sëriñ omar buso ak soxna maymunatu buso di soxna maymunatu mbàkke moom fayee soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddiima yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faati yónni mbàkke mook soxna faati yónni mbàkke itam nag am nañ ak njaboota njaboot gi mu am ak soxna faati yónni mbàkke ñu mën cee ràññee sëriñ mbusoo be buso sëriñ hamdi bilaal buso sëriñ moodu buso soxna maam buso buso sëriñ ateex buso ak soxna aminta yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ mbàkke kandi buso muy ku ñuy wax soxna màgge ture mook soxna Maguette Touré itam nag am nañ ak njaboot ci njaboot gi mu am ak soxna Maguette Touré ñu mën cee ràññee sëriñ Mamoun Bousso soxna Momi Bousso sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Moustapha Bousso di kam faye Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke soxna Maam Anta Bale Bousso ak sëriñ Mbacke Kandi Bousso ndax soxna Maguette Touré mii sëriñ Mbacke Kandi Bousso mii mu am fekkante wut ak waajuróom moo tax itam nag ñu fayee ko waajuróom yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Xari Bousso waaye mook soxna Xari Bousso nag amuñu njaboot soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yi itam nag la ci am njaboot gu jigéen gi sëriñ Mbàkke Kandi Bousso am na ci soxna yi mu dëkkoo woon yii kër nag la ñu dem doomam ji ñuy wax soxna Faati Bousso bi mu matee dem kër nag sëriñ Njoogu Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Njoogu Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee maam Bousso Mbàkke ak soxna maam Awa Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Xadi Bousso bi mu matee dem kër nag sëriñ Ceerno Bousso Daaro nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ceerno Bousso Daaro itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Fàllu Bousso Accu ak soxna Maymunatu Bousso doomam ji ñuy wax soxna Mbeen Bousso bi mu matee dem kër loolu rek sëriñ Alioune Ndiaye nag bu gedde nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Alioune Ndiaye bu gedde itam nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee soxna Waalo Ndiaye ginnaaw sëriñ Alioune Ndiaye bu gedde soxna Mbeen Buso lañ ko jébbaloon nag sëriñ Maram Buso moom sëriñ Masamba Kandi Buso mook sëriñ Maram Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Buso Maram soxna Moomi Buso soxna Jatu Buso soxna Maam Kandi Buso ak soxna Buso doomam ji ñuy wax soxna Maam Buso Buso mu matee dem kër nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul nag lañ ko Mouhamadul Faadal Mbàkke am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag maam Sëriñ Mbàkke ginnaaw bu mu jugee nag ci loxoy Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lañ ko jébbal nag Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul soxna maam Buso Buso mook Cheikh Mourtada Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee Sëriñ Madun Mbàkke Sëriñ Musaa Mbàkke Sëriñ Muhammadan Mbàkke ak Sëriñ Yuusu Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna maam Ajara Buso bi mu matee dem kër nag Sëriñ Cumbuleen Buso nag lañ ko jébbaloon mook Sëriñ Cumbuleen Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee Sëriñ Asan Buso soxna maam am Moomi Bousso doomam ji ñuy wax soxna Moomi Bousso bi mu matee dem kër sëriñ soye bu Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ soye bu Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag am nañ ak njaboota ñu bu sëriñ Abdou Samad Mbàkke soye bu sëriñ Amsatu Mbàkke soye bu soxna maam Mareem Mbàkke soye bu soxna maam Xari Mbàkke soye bu ak soxna maam Ami Mbàkke soye bu doomam ji ñuy wax soxna Kandi Bousso bi mu matee dem kër sëriñ Tayba Saaxo nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Tayba Saaxo nag am nañ ak njaboota ràññe sëriñ mbàkke saaxoo ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ tayba saaxo sëriñ ilimaan mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ilimaan mbàkke nag am na njaboot ñu man cee ràññee sëriñ abdul axat mbàkke doomam ji ñuy wax soxna aysa buso sëriñ mustapha may nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ mustapha may nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee sëriñ xalil mbàkke sëriñ mbàkke daaru sëriñ muudu mbakke arafa ak soxna maam mare mbàkke njaboot gi nag ñooy ñenn nag ci sëti bi mu wéy ku baax ki sëriñ tuubaa woo mu féeteek magam nag sëriñ Masamba Kandi Bousso toppitim nag ci ginnaaw magam sëriñ Mbàkke Bousso di xoole nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul nekk nag ci dëkk boobu ko magam sancal nag di sëriñ Masamba Kandi Bousso di Touba Kojale ba ci atum 1941 tombeek nag sëriñ Afiya Mbàkke nag génn àdduna bi sëriñ Afiya Mbàkke génnee àdduna nekkoon itim nag imaamu jumaay njaareema Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke toog na nag diir bu xaw a a ànd ak nag sëriñ Mbàkke Kandi Bousso ci dëkk boobu nag di bi muy dem njaareem di yóbbu nag sëriñ mbàkke kàndi buso doomam nag sëriñ saaliwu mbàkke ambassadeur nag la àndaloon ak ñeneen nag ci mbooloo mi ginnaaw bu mu eggee njaareem nag la woolu nag mag ñi nekkoon njaareem moom cheikh mamadul moustapha mbàkke di leen xamal ne ba fi sama waajur yu bàyyikoo nag di sëriñ aafiya mbàkke dama doon xool nag ku leen war a jiite nag ci wàllu imaam diir bi na xaw naa yàgg waaye nag suñ boroom xamal na ma ne sëriñ mbàkke kàndi buso mii nag mën na leen a jiite te mat na leen a jiite te saa jiitee nag ci wàllu julli na leen leer na nag ku Tuubaa Xaadim Rasuul nag moo leen jiite ñu def ko nag imaamu njaareem mu wuutu nag sëriñ Afiya Mbàkke imaam googu nag moo ko nekk ci atum 1941 ba ci atum 1945 mu génn àdduna sëriñ Mouhamadou Diop Dagana nag wuutu ko fa soo delloo nag ci mbindum Cheikh Moussa ci marché nag bu jagleeloon sëriñ Mbàkke Bousso ci biir marché boobu mu jagleeloon sëriñ Mbàkke Bousso Cheikh Moussa Ka nag ma ngi cay tudd mbooleem nag rakki sëriñ Mbàkke Bousso yi ca ba muy tudd nag sëriñ Mbàkke Kandi Bousso ci biir marché boobu mu jagleeloon sëriñ Mbàkke Buso ñetti way nag la ca jagleel nag sëriñ Mbàkke Kandi Buso ca biir ñetti way yam jagleel sëriñ Mbàkke Kandi Buso mag wax nag imaam mu nekkoon nag ci njaareem mën a bind nag gu sëriñ Mbàkke Kandi Buso nag mënoon a bind jébbal nag gu ko magam nag jébbal nag ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim na nag keroog bi muy jaayanteeg Seexul Xadiima ak kaamil nag bu mu bindoon jébbal ko mu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke loolu daal lañu seex Moussa Ka nag doon leeral def ko nag ci ñetti way jagleel ko nag sëriñ Mbàkke Kandi so ci marché nag bu mu doon Bousso ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka bind rakkam ju baax jey ilimaani jurbel Cheikh Mbàkke kan ni waaju leer ab armel mag jaa ko jébbaloon sëriñ bu mag ba moo dàq bind laaj ko waa kaamil ba ba mu demee ba jox ko amdil Moustapha lañ xam ne mat na ilimaan bil Muxtafa ginnaaw way yooyu ko Cheikh Moussa Ka defal sëtam sëriñ Abdou Xaadir Bousso moom sëriñ Maamun Bousso soo delloo nag ci marsiya nag bi mu ko defal mag ñuy wax nag lu bare bare bare nag ci dundug maamam lislaam nag gu mat sëkk nag gu nekkoon gu nekkoon ci maamam bëgg ay magam nag gu nekkoon ci maamam sàmm nag yoon wi fi seexul xaddim bàyyi nag gu nekkoon ci maamam lañu sëtam bi nag di sëriñ abdul xaadir buso nag di wax ci taxawu nag gu maamam taxaw woon nag ci diirum nag li muy dund lislaam ji nag ak yoonu murid wi ci kàllaamay arab nag la sëriñ abdu xaadir buso nag def nag way yi ñu teewlu nag way yim def nag ci maamam sëriñ mbàkke kandi buso samsun tudi u li kulli shaxsin yaxtadi bi hudaahu fi sirrin wa fi lixlaani ramsul الأنهار وبحب أحمد سيد الأحيان جاء الخديم فلاس منه أماجد من بينهم شيخ مبكي كن هداني بولاية أبدية شهد الجميع الحب له كما قد فاخ بالإحسان كسف الإله له قفايا سلما يتدمن الأسرار بالنحلان كالبدر في سرف سجاه مقدم بطل حوى كرما محر الردوان ندب أكن له صفا مودة ومحبة mahabbatin wa taxassuqin bi janaani narju min almawla alayhi ridaahu wa kasaaka rahmatahu madal azmaani basal alxataaya lilwara fi wafratin xaalat sawi alirfaani walxafalaani samada alimaamu amaama jabhati kulli man xaadal diyaanati fi jamihi awaani bu amoon nag ak jaxasoo la ak mag ñu toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul rawatina nag seexul xadiim ndax seexul xadiim doyloo woon na ko doyoon na itim nag seexul xadiim ba tax tax na itam nag seexul xaddim daana ko liggéey loolu bare bare bare bari seexul xaddim nag daana ko yónnee itam nag fu bare bare bari bi maam alaaji maalik génnee àdduna ak bi magam nag maam moor jaare génnee àdduna daana bindal seexul xaddim itam am mbind ba tax na seexul xaddim waxoon na sëriñ Moussa Alima Gueye mbindum mbàkke kandi buso jëru topp jërul seetlu ndax mbind mu wér la te leera cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu xaadim rasool la ku fonkoon sëriñ mbàkke kandi buso la ba Moustapha Mbacke itam nag nawoon na ko fonk googu ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke fonkoon Serigne Mbacke Kande itam nag tudde na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doomam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul jarbaatu Serigne Mbacke Kande Bousso la ndax soxna Awa Bousso mi ko meññi ak Serigne Mbacke Kande Bousso nag ñoo bokk Serigne Bousso be Bousso tax na Serigne Mbacke Kande Bousso nag tudde na Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doomam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag yoroon na doomu Serigne Mbacke Kande Bousso Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul ku nawoon nag doomu sëriñ Bousso be Bousso bi la séqoon nag moom itam nag ak relation tax na sëriñ Mbàkke Kandi Bousso itam nag tudde na Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke dooma sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke ku xamoon nag doomu sëriñ Bousso be Bousso bi la ñetti leen na njabootu sëriñ Mbàkke Kandi Bousso di leen xamal ne daal seen waajuroo sëriñ Mbàkke Kandi Bousso ku seexul xaddim fonkoon la daana bindal seexul xaddim nag ay mux ji sa ci gàttal daal mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Touba xaadim Rasuul moo xam muy góor ak jigéen séqoon nga ak doomu sëriñ Bousso njabootu xaadim rasool gi ni la ko amee woon ak ñim bokkal sëriñ Mbusoobe Buso moo xam magam sëriñ Mbàkke Buso ba ci sëriñ Omar Buso mi nga xam ne nii nag moo nekkoon caatum sëriñ Mbusoobe Buso ñëpp nag la séqaloon nag jàmm njaareem googu mu nekkoon itam nag nekkoon fa imaam mag ñoom fa nekkaloon itam mag ñooñu itam nag ni lañ bëgge woon nag doomu sëriñ Mbusoobe Buso bi imaam nag gu mu nekkoon nag ak bëgg nag gi mu bëggoon ki ñu bokk yaakaar nag di Seexul Xadiim soo delloo nag ci marché nag bi ko Baye Lamine Diop defal mi ñuy xamal nag relation yooyu sëriñ Mbàkke Kandi xaddiim nag amoon ci doomu sëriñ bu soobe bu soobi seexul xaddiim itim nag fonk gum ko fonkoon liggéeyloo gum ko daal liggéeyloo ci alxuraanul karim ak xaside yi rafet mbind nag gu sëriñ mbàkke kandi bu so nag defoon ba tax na nag mbooleem doomu seexul xaddiim ak seexul xaddiim ci boppam nag fonkoon ko jarbaatam seex mamudul faadal mbàkke nag seede gum ko seede relation bu mu amoon nag boroom dër bi jox ndigal nag gu seex mamudul mustapha mbàkke joxoon ndigal nag sëriñ bàlla faali jëng ngir mu yeesal nag kër sëriñ mbàkke kandi imaam nag gu sëriñ mbàkke kandi nag nekkoon àdduna nag gu sëriñ mbàkke kandi nag dëddu woon àdduna nangu nag gu sëriñ tubaa seexul xadim nag nangu woon na sëriñ mbàkke kandi nag ci mbooloom nag la bokk lu baree baree bari daal la ñu bàyyi Lamine Jóob nag di wax ci marché nag bu mu leel nag doomu sëriñ bu soobe bi nag di sëriñ mbàkke kandi bu soob ci jikkoog melokaan ak fonk nag gu ko mbooleem nag axlu murit gi fonkoon ñu teewlu nag li ñu ci bàyyi Lamine Jóob nag wax wax la kenn ci axlul kan ni jokkoo nag sëriñ bamba jëf fay jëf yu ràññiku lool kookaay sëriñ mbàkke kanni siñ bi fam ko teg woon fu kawe woon la li tax diineem ja daa dëgg lool mbàkke moom alxuraanam daa rafet xalimaam rafet rafet jikko lee tax siñ bi sopp ko lool rafet xalimaam nga moo tax siñ bi tànn ko nag mu koy bindal mbooti boppam siñ bi woolu ko lool sëriñ bi sax am na bis taalif na ak xasidaam mu binduloo ko ko ngir mbindam ma saf na ko lool li tax mu ñëw dëkke njaareem siñ bi moo ko waxoon njaareem di la lool keroog ba siñ aafe wàccee ab liggéey ilimaan joojee mu nekkoon keroog Jurbel de jaaxle na lool Cheikh Moustapha dal di diisoo woote kenn desul siñ mbàkke bu soo ko wax wax ji mu naw ko ca lool siñ mbàkke kan ni de laa xam nag ni sarte imaam matal na yépp te maandoog jub de def na ko lool Cheikh Moustapha dal di koy jiital mu doon ilimaan Cheikh Moustapha dal ne kii kum jiite sant ci lool kum jiite mel na ni tey Cheikh Bamba jiite na la yonin ba jiite la lii moo rëy te màggati lool sëñ mbamba kum wax ne kii saa dooma ndam la lu rëy kum wax ne saab be tam ndam la lu rëy di la lool sëñ Saali wooy sama doom sëñ mbamba moo ko waxoon sëñ Mbàkke saab taalibee tam wax nga siiw na de lool bis booba sëñ Bamba wax sëñ Mbàkke kenn mi le saab taalibee moo di te yell na lool koo fi gis nag ñu koy màggal xamal ni ëppul bis bi ci yéen sëtam yeeg doom yi di dëgg lool bis bee di seen bis bu bis bi ñëw ku nekk na am pas-pas te fas ca la di aajoom te sonn ca lool nay bis bu màgg bu dee ñëw ci yéen ku ne waaj delloo njukkal mbàkki kan ni mbamba jaadu na lool bay naw sasam moom ci toolub yàlla mbay mu rafet bay toola met ci sëriñ tuubaa ba fàq ci mbool ay taalibeem ak i doom ak sët ya sedd na leen seddaale soppam ya kër goo gis da tàñ na fa tax ñu def ko taalibeem wër ga lii jafe lool ku dëddu woon la imaam joo xam ne nee ñu këram sàkke de daa maxe néeg yeey seen tam ciru lool Cheikh Moustapha moo digal Cheikh Balla Faali demal nga yeesalal Mbàkke Kanni kër ga ràpp na lool Cheikh Balla Faali murit ba nag defaraat këram nga moo sàkketaat sàkke de bam fatt lool keroog ba suñ Mbàkke wàccee ab liggéey la sëriñ Fadilu wax ne dikkam njaaréem lu tiit la de lool ngir wàccukaay ba sëriñ Tuubaa waxoon la xamoon buy wàcc Jurbel liggéeyam wàcc mboote na lool diir diir ba yàgg na lool sëñ Mbàkke Kanni doomi siñ bi ñëpp a ko naw jarbaat ba Seex Abdu Xaadir Mbàkke wek na ko lool siñ Mbàkke daa man ci xuraan dellu man ci mbindam te man ci xam-xam xamuk bokkit te fonk ko lool rafet la xuraan rafet xam-xam rafet la jikko rafet la ay mbokk rafle woo ko dëggu na lool sooyul ci bamba ji moom sooyul ci mbokk gu moom sooyul ci diine ji lislaamam di rafet na la lool sarte imaam moo di sarte yi gën ku nekk imaam yow gën nga maamoom ya sëñ Mbàkke fi gën jikko lool gën jikko gën judd gën askan gën sëriñ it bu doon na ngiiroole sooyul mbàcc seddu na lool cëram bu réy bi moo am ci diine jekki sëriñ tuubaa de yàlla na ko am bis penc ñépp di xool te yàlla na sàmm njabootam gii mu bàyyi fi nun seen fan ya yàlla na sut fanam wa mëdd ko lool ci darajey bàmba def xéewal gudul dogati ci sayidil xaw mi jóob dallul ne sonn nga lool ginnaaw way yooyu ko bàyyi lamin jóob way nag am na yeneen sëti sëriñ mbàkke kandi nag yu way nag sëriñ mbàkke kandi maam sëriñ Seexuna Buso moom sëriñ Basiiru Buso sëriñ Mustapha Mbàkke maam asta ak Baay Lamin Jóob ci farloog bëgg sëriñ Tuuba ak imaam nag gu ko mu Cheikh Mamadul Mustapha Mbàkke nag joxoon ci la sax nag ba ni mu génnee àdduna moom sëriñ Mbàkke Kandi Buso sëriñ Mbàkke Kandi Buso nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk boobu mu nekkoon nag ci ndigalul Cheikh Mamadul Mustapha Mbàkke di njaareem ci bisub dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn nag ci weeru gàmmu ci atum 1364 ci gàddaay gi weeru gàmmu ci atum 1364 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 11 février 1945 dimanche 11 février 1945 ci xilaafaak nag ka ko yóbbu woon nag ci dëkk bu sell boobu nag di njaareem di cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu jëlee ko njaareem nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba magam sëriñ mbàkke buso moo wax doomam nag sëriñ moodu buso nag ibnu sëriñ mbàkke buso ngir mu jullee nag waajuróomam woow nag di sëriñ mbàkke kandi buso ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi soo sëtam way di sëriñ Seexuna Buso moom sëriñ Basiiru Buso mag ñi wax nag lu bare bare bari nag ci dunduk maamam ni maamam meloon nag ci sunna ni maamam fonke woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul taxawu nag gum daa taxawu Xaadim Rasuul nag ci ndigal yim ko daa joxa farlu gum farlu woon nag ci jàng alxuraanul karima fi mu jaar nag ci wàllum njàng yéeme daal gum maamam yéeme woon nag di sëriñ Mbàkke Kàndi Buso la ñu sëtam bii nag di sëriñ Seexuna Buso nag di xamal ci marché nag bum ko defal ñu teewlu ko muxtadab bi la fëgg tey jël ndëndëm bërëm a te wëy yeesal yeesalaat woy mu bér jege leen ma fàttali tey ahmadul qadim dafa ñëw yeesalaat sunna si kañu roy tànn yoon mu ya ko doy kenn ci gaa yi mu yar moom lay kañ aka ma xalim gi ma wëy Mouhamed Bousso mooy ku ñu xam nijaayi moo ami may daa wax yàlla doon ju mu am ney walliw gu ñëpp di mooy yàlla nangul ko loolu bi wér ay mbërëm ñooy kañu tey kenn ci mbër yi laa fasa way ab bisam mooy riir mi tey Cheikh Mbacke kan ni bindkat nijaayi sunna moo ma a roy sunna di xaadir mooy sang ba def naa ko way muy nos gi tey 682 li fi ñëw ci waajur jub bëri ay may fi doomi soxna baaxoo aw jàng xuraan xam ak way fépp la jaar bay tànnéef sëriñ bi fal ko nit ñi di roy Cheikh Massamba Cheikh Mbacke ñoo ko wan xam ak bañ a nay ci wàllum jàng foofu la jaar ba xam lu bari soobutu way jaamu yàlla jub ak roy ci bamba mii moo jarangooy sax ci liggéey ak mën a muñ noppi yaatu yaamata roy nos njaboot gi def ay say dénk bàmba mi xol yi tey daana bindal daam ay kaamil xasaa ay yit dawul sooy bind mox ji sàmm moo waral mbër ma jàpp jël defaay bam xamee dëkk jàngaleeg bay ci loolu la ne ba Cheikh Xaafiya imaamu Jurbel wàcc na tey Cheikh Moustapha taw mbër ma woolu Mbàkke wax ku lu rëy imaamu Jurbel wutal ma fal ku jub te sell di roykaay Mbàkke na ko Mbàkke saani xam na jun na mat roykaay al Moustapha fal ko imaam Jurbel da moom kenn du fa jooy teg ca wax na Mbàkke saani mel na na Bàmba ci imaam tey ku mu jiite Cheikhul Xadim moo la jiite xamal ci loolu la sax di def la ko war dogalub yàlla xëy si fa tey 45 la roogën a mes fekki Bàmba muy coow li tey jàmbaar siñ bi matal na dem lépp lu mat dafay xale way way li kulli shay la saaxir ba wax mbir mu mat dafay xala way na buur dolli may mu jug taas ñu barke ñuy gën a way yàlla buur bi aar fi toog seexi fàll moom ak a way ak rakkam yi booti moom lu mu bëggit ñu def duñu lay sàmm sëj yi def ay say teg ci yoon wa ñuy gindi tey jàpp sëj bi jox lu wóor ñëpp di mos tey bañ a fuuy muxtadab ci lay tëjawaat sàkku barke jub ak roy ubbiku lool ci am aqam doon xaalim bu ñuy xala may yaa rabbi salli binnal xakim li fi yëg nit mi ngi bind ak way ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ 1965 ba ci atum 1964 taawam ba sëriñ Seexu Buso moo ko njëkk a wuutu nag nekk nag ab xalifaam ñaareelu xalifa sëriñ Mbàkke Kande Buso sëriñ Ibrahima Buso la ci atum 1964 la ba ci atum 1995 ñetteelu xalifa sëriñ Mbàkke Kande Buso ci atum 1995 la ba ci atum 2017 di sëriñ Buso ba Buso ñeenteelu xalifa sëriñ Mbàkke Kande Buso kam faye nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke la di sëriñ Fàllu Buso moo fi nekk nag ci atum 2017 ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ borom gudd guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Mbàkke Kandi Buso bi ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Mbàkke Kandi Buso moo xam ci góor ak jigéen sëriñ Mbàkke Kandi Buso nag am na nag bis nag bu buñ koy fàttaliku ci lu ñu tudde ak màggal njaboot gi nag ñu ngi jàpp juróom benni fan nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu di bis boo xam ne nii itam jortu nañ ne moo dëppoog nag bis bi nga xam ne nii ci la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxoon ne nañ ma woowal nag sama taalibe ba tamuy sëriñ Mbàkke Kandi Buso di seen waajur bis boobu nga xam ne nii nag ci la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim faboon nag seen waajur boole ko nag ci mbooloo mim taxawal nag di muridisme dañ jàpp ne daal wërta sori nag juróom benn fan nag ci weer wi nag di rakk ci gàmmu moo tax itim nag ñu xayma jàpp bis boobu itim nag di ci fàttaliku nag bis bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim nag boolee seen waajur nag ci yoon wi mu taxawal bis bi nag ñaareelu xalifaam nag di sëriñ Ibrahima Bousso nag moo ko amaloon bis bi itim nag bu njëkk bépp xalifab sëriñ Mbàkke Kandi Bousso sa kër nag lañ ko daa defee li ko dale nag ci sëriñ Ibrahima Bousso ba ci sëriñ Mbusoobe Bousso bi sëriñ Fàllu Bousso ay magam la jël bis bi nag doxal xam ne nii nag mbooleem njabootuk sëriñ Mbàkke Kandi Bousso nag ñoo ko bokk muy Touba Kojole nekk nag ci suuf si nag di daarul xadiima ci yoonu Touba belal bi juróom-ñetti kilomètre nag moo dox nag ci digganteem ak dëkk bu sell bi ci dëkk boobu itam nag la ñuy amale bis bi ñu jagleel nag sëriñ Mbàkke Kandi Bousso màggal gi itam nag màggalug bëccëg la bu tàkkusaan jotee ñu ñaanalaat nag mbooleem ñi nga xam ne nii nag sëriñ Mbàkke Kandi Bousso nag yitteel na leen ñu delluwaat ci yitte yi jàppaat bis bi déwén ñu ñaan ca doomu nijaayu seexul xadiim ba sëriñ Mbàkke Kandi Bousso yàlla nañu ko suñ borom fayal nag